wasallam macha allah macha allah allah ndeysaan allah ndeysaan macha allah bismillahi rahmani rahim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 te mooy li nga xam ni kenn ku nekk ci daayira ñu mënta nekk ku ñu mënta teg ca bopp bu ñëwee mooy lal mooy lem malaan ba ka nga xam ni bu daayira ba dee zikr ma nga lal ci kenn ku ca nekk lañu la digaloon ba tax tey ñu xam ni lii daayira la loolu lañ lay digal ba àdduna di tukki parce que discours bi du changé gis nga aadam alayhi salaam bi ko yàlla yabalee comme yonent li mu jàngale moom la yenent yàlla nox alayhi salaam jàngale moom la ibrahim alayhi salaam jàngale moom la Moussa jàngale moom la Isa ibnu Maryam jàngale